ko rapport ak. waaw bien sûr bien sûr parce que dafa bëri ay dérives yu am. waaw ci li ab Abdou Nguer wax. et ça veut dire que maîtriser wul état maîtriser wul également développement ak souveraineté. Hmm. xam nga Pastef programme tax ñu accéder au pouvoir benn. Pastef hmm. programme tax ñu tàllaat sénégalais yi laajaat leen sénégalais yi jox leen assemblée nationale. Hmm. Ousmane Sonko c'est le seul candidat ci candidat yi ñu xam yi nga xamante ni am nañ tur nit ñi ñu ngi leen di bàyyi xel. Hmm. c'est le seul bu li ne un programme devant des milliers de sénégalais nit ñi taxaw di ku déglu moom moo ko fi def. ñeneen ñi si des ñëpp amuñu programme c'est leur souci c'est leur seul souci wax naa la ko fii. mooy xëy gis Ousmane Sonko féewaloo ak Bassirou Diomaye fay loolu rek muy seen programme beneen bi xaar lu ruus rek. ci communication Ousmane Sonko ñu jël loolu def ko programme di ko wax ay moo ñu waxoon lii respecté wul lii nangam ak nangam man si moment boo xamante ni aujourd'hui sénégalais yi lu ñu gën a soxla mooy nga wax leen fan nga jëm ak boo demee assemblée nationale lan nga yéene def pour sénégalais yi Ousmane Sonko dama ne am na pour pourquoi am na mérite dafa transformé waat la vie politique sénégalaise fan nga daan gis ñu dem ci campagne électorale. Ousmane Sonko dem ci benn proximité boo xamante ni dañ leen daan exclure ci débat public yi fexe ba proximité boobu mu invité la ci lu soxal réew mi à travers comment ci pôle yi mu dem ma wax la ko fi keroog Ousmane Sonko gagné rek la mënoon a def. mais mais est ni ngay waxee ne dafa transformé. Euh, la espace politique bi est-ce que aussi Abdou Nguer d'une part du am raison que ni peut-être waroon nañ euh, fexe nu mu tegee ba transformer dundu sénégalais pour que tamit waaw mais mais ci loolu lañ ne loolu ci logique boobu fa laa jëm ok allez en train de transformer li nga xam ne ko mooy dundinu sénégalais waaye nag boo gàttee xam-xam doo xam fi ñu jëm boo gàttee xam-xam doo mën a xam ni on a un gouvernement avec des ministres très compétent yoo xam ni ñu leen jox te ñu ngi liggéey te boolewuñ ci wax yow gis nga le travail kii est en train de faire par Mabouba Diagne ministre de l'agriculture tu l'as vu un travail extraordinaire extraordinaire dans le monde rural il est en de le faire ba mbay mi ñor am na ñu tudd ñu nekkoon ci mag yi ñoo xamante ne peut na ne laale nag euh, crise économique bi léegi euh, fa laa jëm xam nga nag laaj si naka la Sonko est-ce warul jublu ci bëgg-bëgg Sénégalais mi ngi si ok xam nga réew mi ñoom fi ñu ko fekk si ak yàqu-yàqu ak dëng-dëng ba nga xamante ne tey moo jur impact yu négatif yi sénégalais yi du dund hmm. ba yóbbu leen ci souffrance boobu réglé ko du ñaari fan du ñetti fan du ñeenti fan ministre boo fi wax tey moo wax la la muy liggéey ñoom ñépp ñu ngi liggéey liggéey bu am solo bu extraordinaire te boolewuñ ko wax ak coow ñu ngi ci logique boobu senegal nee nga de Sénégal dafa métti est ngeen rapport bi nga génne nañ ko si wàllu importation ak exportation boo defee naa lëpp lëpp pop moo ko génne léegi. vox pop yi vox pop yi lan la wax mu ne Sénégal fi mu toll nii fii ñu toll nii exportation yi moo ëpp doole importation yi te réew mu jëm en vers le développement foofu lañ koy nattee maanaam say exportation moo war a ëpp doole say importation pour que balance bi mën a nekk un balance équilibré rapport baa ngi nii vox populi baa ngi nii. maanaam pour pour pour ñu ko comprendre lu Sénégal di génne fii di ko jaay ji. bi ci léegi moo ëpp moo ëpp la muy jële bi loolu nag signe la vers l' ver le développement. parce que réew moo xamante ni la muy jéggaani moo ëpp lay génn réew moom mu ngi si ndóol ci kaw la jëm. léegi est ce que dafa basé wu peut être ci pétrole bi commencé génn ak. gaz oh, bi pétrole bi ak or bi ak yenn kii yoo xamante ni c' est kii alimentaires mi ngi ci rab vox populaire bi mooy li ma la waxoon ñii amuñu temps duñu lire <laughs> xamuñu lu xew ay rapport la ñu fii tege dama ne la gouvernement bi nga bañ leen nga nangul leen sont en train de faire un travail extraordinaire pour transformer la vie des Sénégalais mm-hmm. en terme de régime alimentaire mais nag boo boo nekkee koo xamante ni bëggoo gis seen lu baax lool doo ko wax donte nag am na loo xamante ni des na mais ñu ngi si góorgóorlu mm-hmm. xëy na peut-être bu ñu demee à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale aussi il ne faut pas que mu nekk benn bërëb ñuy minimiser mm-hmm. li nga assemblée nationale day participer ci li transformer la vie des sénégalais. oui oui dañ ci am kàddu parce que les réformes économiques day jaar assemblée national hmm. les réformes judiciaires dafay jaar assemblée national souveraineté alimentaire bi ñu bëgg pour ay at ñu am ko mais réforme économique moo ko mën a indi. Hmm. réforme économique yooyu ay loi ñoo koy jëmmal fu mu jëm fan la jëm du assemblée. kon assemblée nationale am na kàddu. kon am na kàddu moo tax ma ni la boo ñàkkee xam-xam nag ba mel ni man doo xam rôle bi assemblée nationale mën a jouer pour la transformation hmm. de la vie des beneen bi wax nañ ci li nga xamee ni que mooy euh, chiffres yi yi nga xam Ousmane Sonko waxoon na ko hmm. sëriñ ku lay bindal ay hmm? note ci téléphone bi kenn lu ma man maa jël note di bind ah, man maa doon jël not est-ce que la ma ko fi waxoon keroog lu bëgg a fay loolu moom mais Mouhamed Sonko daa taxaw ni chiffre yii dañ ko falsifié hmm. lan la si FMI wax dara FMI dafa ni ànd naag Sénégal ci logique gu transparence gouvernance bi nga xamante ni moom la woote hmm. ñu ni woon am ñu ni bailleurs yi de dinañ gën a daw Sénégal ndax Ousmane Sonko tiital na leen ñi ko waxoon ne si si wàllum politique ma jàmbal jaañ lañ mooy mooy mooy seen arxuraan ci politique lu mu wax rek loolu la ñuy gëm muy Abdou ngeer mii. mais ba tey sax Nguer insisté insisté na loolu bëggul mu doon dëgg parce que bu nekkee dëgg mën na dugal Sénégal ci guuta waa xam nga loolu dinañ daw. mais duñ daw parce que moom laa moom laay tontu nii ne ko. Hmm. moom xalif général la jàppee ma jàmbal jaan ci politique ba lu ma jàmbal wax dëgg la. waa léegi bu fekkee ma jàmbal moom moom nga jàppee arxuraan si politique ma jàmbal jaan nee na. Sénégal bokk na si dix destination yi nga xamante ni bailleurs yi ak investisseurs yi fi lañ gën a jublu. c'est Madiambal qui a dit ça. waaw gën a jublu boog waa déglu ma la. luy gën a jublu gën a jubloo gën a expliqué mais du ragal wax non dama lay wax dama lay wax dama lay wax xaalis dama ne la taxawal ma ñëw mais dama ne la lu waral loolu ngeer yéen tey ngeen bëgg FMI tey ngeen gëm FMI dama ne la gis nga Arabie Saoudite la ñu wax dafa gis nga aujourd'hui on est dans un monde ouvert. Ah. y a pas que dama la koy xamal gis nga xoolal àdduna bi dafa ubbeeku bu dul FMI di keneen bu dul banque mondiale di keneen. am na y a des pays yu nga xamante ni xoolal lijjantiwuñ FMI lijjantiwuñ banque mondiale te seen financement yëpp ñu ngi koy capté à 100 pour cent di développer seen ay projets de développement. il faut ngeen gëm seen bopp. xam nga lan mooy gëm seen bopp il faut bâtir suñu propre richesse pour ëllëg. bañ a ci ay institutions yi nga xamante ni c'est des institutions yoo xamante ni lu ñuy gën a dem dañuy gën a ndóol ré plongé réew mi ci ak ndóol ci ak njàqare. ndax ngeen fay dem di leen dama ne la waa ji loo ko bañ bañ bañ. waa ji loo ko bañ bañ bañ. dafa gëm mooy kon Sonko mooy Sonko dafa gëm boppam. Hmm. gëm ni Sénégal ëllëg war na mën a tabax richesse su boppam. ca loolu la ne moo tax bi mu ñëwee ci ak gouvernement am dañu ne l'assiette fiscale dañ koy gën a yaatal ba ñëpp di fay impôt. Hmm. ñëpp di ko fay. entreprise yee nekk na poñ bu am solo ci seen vision. Sénégal 2050 gars yi di xoolal gars yi di tëdd yuuxu Anta Babacar Ngom mii ak sédiment naan dañuy jaay lenn ci seen ay part di napp gouvernement bi. yaakaar ni gars yi ay chantage wala ak ay pression mooy tax ñu dellu ginnaaw ci seen politique fiscale bi. Hmm. léegi nag si politique fiscale boobu ak redressement fiscal ñi bañoon a fay impôt te ñuy fay si suuf ñaata la généré comme ressource Sénégal. dara keroog gis nga ko ñu bind ko. dara ñu ne la revenu yi dafa gën a yokk. Hmm. parce que ñi daawul fay ñoo fay. am na ñuy fay suuf. te bëgguñu fësal ni ñu ngi fay. ñi fi doon yuuxu yëpp. naan mais nag est-ce que buñ si parce que dégg naa ngeer benn jour mu si wax buñ de trop du dem ba ñu tëj te bu ñu tëjee xëy ndaw yi mën nañ jàpp ne dafay wàññeeku. waaw mais kon kay mooy xanaa buñ fay impôt. trop de impôt tu de impôt. Ah, fay impôt. man xam nga je veux un un li nga wax noonu am na solo de. juste bu bari day rey waaw waaw. juste ñoo la ne. nag da koy xott ba mu suur. noonu non kii kii amul xam-xam de. ah baax na non li ngay wax nii du xam-xam réew lu muy dundee réew la lay dundee. waaye du impôt kese lay dundee. réew impôt lay dundee impôt kese lay dundee. réew. ma ne du impôt kese lay dundee. demal impôt gën a tuuti ci li muy dundee en tout cas réew yi développé yëpp ngeer fooye wuñ ko de. boo demee France boo demee même jour. africain nga xam te ne bëgguñ mais dañoo fexe sax dañuy daw yow yow yow fay yow man koo euh, boo demee France gi boo demee France. ci tu vois un Sénégalais par exemple par exemple qui gagne. Hmm. par exemple un million par mois. bu ko totaliser bu génnee impôt yi mu war a fay ak nangam ak nangam boo moytuwul cinq cent cinq cent cinq cent mille francs CFA moo koy dese. y' a beaucoup sénégal Sénégalais qui gagnent bien leur vie en France. Hmm. mais bu ñu nga waxee lañ leen di dagg ci ay impôt ak yooya ah da ngay jommi kon dama loolu pour rejoindre li nga wax un petit mooy impôt amul réew mu sérieux mu koy fowe. tu as hmm. léegi nag ñoom ay impôtier lañ xam nañ njëriñu impôt ci république ci réew te ñun suñu réew yi nga xam ay réew yu ndóol lañ. tuias yi dañuy mën a jafandiku ci impôt c'est-à-dire waxuñu nag impôt boo xamante ni dafay gaañ les entreprises mais mooy li ma la wax un impôt juste et équilibré. juste et équilibré booboo amul. am nag amul. déedéet ñoom li ñu tegoon pression fiscale bi yëpp. amul lu ñu la. voilà lu ñu fekk la. donc nag y a un civisme fiscal boo xamante ni si ñoom ñoo ñu doon yuuxu ni tey dañ leen bëgg a asphyxier financièrement si ñoom la waroon njëkkee. Hmm. kon daal jàpp naa ne aujourd'hui ak lu waay a wax itam. parce que bu nekkee di analyser aussi. wala nekk di ay chroniqueur dañu war a xool lu baax ak lu bon mais mënuloo jël sa bët yépp orienté ko si lu bon rek hmm. ne li man moom gouvernement mu baax ak mu bon lépp bon man jàpp naa ne loolu moom bu ñu ko hmm. defee on est plus dans l'analyse politique eh opposition bi li leen jural seen défaite xam nañ ko hmm. non seulement leurs alliances là c'est des alliances contre nature yoo xam amul benn njëriñ ay erreur kas kasa dafa mel ni posé wul poids bu ñu doon xaar ci mais mënu ko posé bi ak yenn mënu ko mun dafa mënul ne mënul ne mënul dafa mënul ne xam nga Macky Sall ak Ousmane Sonko lu tax ñu waxoon ni bi yeewi askan wi di am euh, di témboo ak le régime de Macky Sall te c'est parce que bipolarisation dafa amoon ci biir politique bi loolu hmm. mënoon wax da ngay xam ni am na ñaari pôle yu am force yu taxaw mu yeewi askan wi ak la la Benno Bokk Yaakaar mais est-ce que fii on on peut parler de bipolarisation dans la vie politique amul benn grand pôle moo fi ne hmm. mu di Pastef ak ñi mu àndal boo génnee Pastef mënoo ma tuddal beneen pôle bu am envergure ci espace politique bi fii. mënoo ma expliquer loolu. et pourtant récemment le président Macky Sall ñàkk nguur jàpp nañ ne sax Ablaye Wade avait fait mieux que lui ba mu ñëwaatee pour laaj baatu askan bi. mais li Amadou Ba tibb tibb ci électorat am bu ñu ko xeeb. Hmm. Amadou Ba du dafa génn ñan ak ñan ak ñan la Amadou Ba yóbbaale. Amadou Ba résistance bi lu ñu ko bañal résistance bii mu xaw am tuuti lu ko parce que dafa am électorat bu mu jël ci APR bu am dool doole Macky Sall ña ko njëkk bàyyi c'est son premier propre frère. mais est-ce que autrement ñu wax ne force benn Bokk Yaakaar dafa reposer woon peut-être ci parti socialiste ak AFP. non ñooñu ay parti la parti de contribution yoo xam seen contribution yi amul woon solo. tu as vu Macky moo amoon benn moom amoon na moom kii électorat personnel bu ko bu bu mu boppam. Hmm. parce que gëw ma ni sax support bu am solo bi ñuy wax bu jógee ci AFP wala parti socialiste amoon na fa. tu as mais dafa am ay ténor yoo xamante ne si diggante bi dañoo quitté le président Macky Sall te si des ténors yoo xamante ne en politique. dañu amoon une représentativité dañu amoon base. c'est ça la réalité des choses. Hmm. opposition bi man ba àllaaxira Sonko yow kii. ba àllaaxira kii Sonko kon. musuma woon xalaat Pastef la créé après. musuma woon xalaat. li tax nga wax yi wax ne am nañ doole kay. benn bopp transhumant sax dafay amut. ma nga naan transhumant dama ne la. Hmm. ba àllaaxira si ku ma mës dégg may wax damaa mës a wax ni. non yàpp mbaam moom damaa mës wax ni yàpp mbaam moom. Ousmane Sonko ak ñi mu àndal dañuy doon yàq seen carburant rek <laughs> billaay bu ñu tëddoon sax di nelaw dañuy gañ parce que amul amul y' a rien y' a rien c' est du vide. Hmm. accord te élection yi wane na ko. Hmm. gis nga liñ ñu leen gañee gañee boo xamante ni ana sàmm sa kàddu yi ñu doon wax. sàmm sa kàddu man sàmm sa kàddu yaakaaroon nañ sax ñooy raw Amadou Ba ak seen wax ju bëri ji ndaw ñi émigration clandestine bi wedd nañ gaa yi marchand ambulant yi wedd nañ gaa yi foofu xam naa après dinaa interpeller Nguer mais jaadu nañu def si benn jàngat parce que Nguer sànq juñu na ko ne benn nouvelle génération politique mooy génn ñu mën a jàpp ne sàmm sa kàddu bokk nañ ci nouvelle génération politique boobu mais malheureusement pour ñoom dañu gis ne askan wi joxuñ leen bopp loolu lan moo ko mën a. xam nga lu ko mën a expliquer. gis nga nag bu ñu muusante jaayante muusante suñu biir. Hmm. Nguer musul wax loolu musul wax ni am na benn nouvelle génération. non sànq nii wax na ko sànq. waa dama ne waxuma la tey de. ah ok par le passé émission tey bi. dama ne la ginnaaw defet bi seen discours yëpp soppi nañ ko. tey la ñuy xam ne nag mm, dañ koo njar léegi. léegi nu ngi koy njar di ko rafetal <laughs> njar moo fi Nguer mii bu dee yàgg ko dëgg dafa yàgg wax ni Pastef du gagné. aussi mosu si wax aw. mooy tuddee di de waaw Nguer moom amoon na si yaqin bu rëy wax dëgg yàlla. dafa doon wax ni. Mm. Pastef du ñu gagné. te fi mu ko demoon fi mu ko tegoon nga sosal man fi mu ko tegoon hmm. ko tegoon wax naa la ko léegi si ay analyse yoo xamante ni c'est pas scientifique yow moom amoo fee lay dem toog si jaaykatu café bee benn waay romb ko fa am kersaam sa waay man da weddi naa passé mu ñëw def loolu une réalité <laughs> gis nga booy analyser si loolu nga koy teg si lu scientifique hmm. lu lay wan ni Pastef dina ñàkk ah, te fii laa ko teg ci argument bi ndax configuration politique yi acteurs yi ni ñu booloo baaxul opposition bi nangam ak nangam ni ñu taxawee baax na bu ñu demee dañuy gañ. rapidement le cas sàmm sa kàddu ma dem si ngeer. mais sàmm sa kàddu ku fa ne. parce que dañu jàpp ne nouvelle génération ñu doon séntu ci politique surtout ñu waroon a mën a opposé wu passif fa la ñu bokk. Ah, bokk ci nouvelle génération. keroog moo xam fii lan mooy expliquer keroog fii seen deltu ginnaaw dama ne la ñi si doon ëpp ñuy perdre les grands perdants. oui de cette coalition là donte Anta Babacar Ngom rëcc na. moom la. Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany les grands perdants. ak pur ak ñooñu tey man dama jàppoon ni tey man doon naa fier trop gisoon leen ñu teg seen coalition bopp ñoom ñooñu. Hmm. gis nga ñooñu bu ñu tegoon seen coalition bopp te ñàkkul ni reconfiguration dina am. parce que ak seen coalition bi ñu tëral du dem parce que du leen jural njëriñ. da nga def nañ ay erreur yu bon ci choix yu bon. xam nga bu erreur amut woon individuellement dans un premier temps. bi defet bi amee kan a njëkk a génn génn félicité. kan la njëkk a xibaar ni moo njëkk a génn. Bougane Gueye est-ce que defuñu ko xam nga dañ koo def d'une manière individuelle. oui lu tax xaaruñu ba coalition bi prononcé loolu mooy logique am nañ c'est parce tout simplement xoolal xam nañ ni y a des querelles internes am na lu ñu waxul seen biir. parce que li doon logique politique mooy coalition bi mooy taxaw ñu réunir ba pare. ñu féliciter kenn ku nekk door koo def d'une manière individuelle parce que loolu tey par exemple bu fekkoon Bougane dafa njëkk a def. coalition Barthélémy Dias génn ni am lu muy contesté du indi jiixi jaaxa. Hmm. loolu du logique politique du xam-xam politique. dama ne du coalition bu war a survivre bu fekkee nag am nañ xam-xam politique. Hmm. ñoom ñi ne anti système lañ. yàlla dogal yow kenn mënul taxaw ne Bougane Gueye Dany mës nga laal ci nguur gi yaa fi nekkoon lii yaa fi lubal lii waxal ko Anta Babacar waxal ko Pape Djibril Fall ñu nekk des hommes sains dans l' espace politique. Hmm. pourquoi ñoom mënuñu woon dëgg gëm seen bopp gi ñuy woote ànd seen coalition bopp dem lu ñu am jël. comme ni Tahirou Sarr def. d'accord Tahirou Sarr aujourd'hui il est en train de bâtir son propre chemin hmm. parce que dafa gëm boppam gëmul ni war na mënul langaamu si kan ak nangam ak nangam man loolu laa bëgg nit ku gëm sa bopp mooy mënoo woote gëm sa bopp Dembo Ndiaye nga boole ceeg benn discours ne diw mii du ma mus a ànd ak moom parce que il a trahi toute génération tout un peuple hmm. tey nga ñëw wëlbatiku d'accord ànd ak moom d'accord loolu ñàkk gëm sa bopp la. d'accord Serigne Niang ah, loolu lay ñàkk ñàkk gëm sa sa bopp la dinaa si ñëw dinaa si ñëw ngeer. ngeer ah, waaw may ma dem may ki mu laaj may ki mu laaj ngeer si yow laa